Euh, monsieur Alla ah. Dieng ñu ngi lay nuyu. Euh, di fàttali mbokk auditeurs yu rajo Rewmi FM ne yow yaay directeur exécutif euh, de l'UNACOIS Yessal union nationale des commerçants industriels du Sénégal. wax ni nag tendance haussière bi jëm ca prix yi nga xamante ni dooroon nañ ko 2020 ba tey donte nag amoon na lu bees lu ci wàcc daanaka ci atum 2020 bi mi ngi gën a yéeg est-ce que mën nga ñu expliquer lu waral loolee. waaw dama dama lay wax ne depuis cinq ans six ans benn prix yéegu fi wala yéeg yu sensible lay am en fonction des événements mais prix yi dañu stabiliser woon lii xew barki démb nag dafa xew bett ñëpp mais ñun yéenewuñ ko yéenewuñ ko kenn parce que consommateurs yi ñooy suñuy ak ñooy suñuy partenaires principaux parce que ñoom ñooy jënd ci suñuy boutique suñu magasin suñu dépôt hmm. mais li ko waral Euh, benn waaye muy jógee fële wax ci turu beneen organisation commerçante di wax ne daal danañ yokk balaa yàgg mm. léegi loolu suñ ko waxee nag marché bi day déréglé parce que am na ñoo xam dañ mm. benn impôt bu jógee ci état bi bu tax njëg yokk amul wala jóg yëguñu ko te ñu nag ñoom ñoo mm. dire mais en tout cas yoo xam ne nii su fekkoon ñu am dañu yokk njëg yi euh, njaay ko en gros te loolu day am répercussion ci prix détaillé mhm. alors wax nga ay waay ñooy profité waa yooyee est-ce mën nga ne duut baaraamu tuuma bu ko defee ñu xam ñan la. waaye yu naa ko jàppoo. duñ def ci mbir yi. dafa am benn impôt bu bu ñu bu boo xam ne nii dafa concerné importateur yi dul fay impôt. Mhm. te loolu kenn appliqué gu ko wala bu ko appliqué day am jóge na assemblée bi fa am décret d' application bu jóge ci ministre bi te balaa loolu sax ñun dañuy waxtaan ak direction des impôts. Mhm. réunion bi mujjee am directeur des impôts fekk naa ko. Mhm. mais li ñu wax mooy dans six lañ koy appliqué kon njëg yi bu yokkoo jógewul ca loola. léegi nag ñoom dañu wax ne lii dina yokk ba bu bu impôt bi ñëwee te impôt bi kenn commencé ko appliqué. Mhm. donc am na wax joo xam soo ko waxee day créer day dérégler marché bi créer plus cause am léegi daal ne ñii ubbil nañu buntu bu fekkoon am nañu stock bu dañ sax yokk njëg yi dégg nga mm-hmm. te te te te buñ koy jaay bu fekkee ne produit wàññi ko ci marché bi njëg day yéeg parce que produit bi bu baree njëg day wàcc. Mm-hmm. léegi nag loolu la ñuy wax la loi universelle du marché c'est la loi de l'offre de la demande léegi nag wax jooju nag moo waral lii. Mm-hmm. donc loolu seen responsabilité ñoom ñu ko wax. kon da nga gis ni Unacois jàppoo lu njiit gi njaag njooy njaag ñoom ngay duut baraamu tuuma ñoo déstabiliser. loolu loo loolu dellu ma ci gannaaw je d'accord alors très bien lu jëm ci mbirub euh, ceeb euh, ak euh, courant bi ci lu yàggul dara coono waaye nag yokk gi doy na waar est-ce que loolee côté yooyu mënul andi njàqare ci askan wi. mais bien sûr parce que consommateurs yi ñoom ñooy jënd di consommer muy ménagères yi muy borom kër yi. léegi ñun suñu sañoon dañuy jaay lu yomb ni seen pouvoir d'achat gën a yokk parce que pouvoir d'achat Sénégal dafa néew doole déjà. su ñëwee yokkaat leen musiba am donc. affaire courant bi nii ñu ñu ngi profité wane dafa laal prix directement mais courant bu yokkoo la muy laal directement mooy produit surgelé mais du laal yenn lu mën naa bañ a laal ceeb donc loolu duñ duñu wax ñu wax ne automatiquement lii dafa yokk donc lii dafa yokk mhm. donc denrée première nécessité depuis huit ans lii la yokk ab ay quarante-huit mhm. te loolu wax jële moo ko waral léegi nag ñun ànduñ ci dañ ko condamné digu ñu digaluñu sax suñu membre ñu yokk seen njëg na ku ci nekk la daan jaay fexe ba teg ci marché ba ca war a tegu nga jaay am ci dara kii mhm. mhm. ministère du commerce et balaa yàgg foog naa situation dañ ko woon gannaaw mu nekk mhm. page tournée. Uh-huh. loolay ngeen digal seeni membre est-ce que ñoom ñu ngi koy appliqué yéen ngi contrôlé xool est-ce que ñu ngi koy appliqué ñi ngi jokkoo ak suñu membre ñu waxtaan ak ñoom. Mhm. parce que am na loo xam du ñoom mais marché bi la. ndax fi bu fekkoon yow ñële nañ te yow yokkuloo nii mais ñoom euh, bu fekkee qualité yi am na différence yow il faut nga dugg ci circuit pour mën a jaay. Mhm. donc bu fekkee bu fekkee loolu laal mu yokk nga jënd engrais mu yokk boo bu ñëwee détail day yokk te du ñun dañu am ay membre yu jaay engrais am nañu ay membre yu jaay détail waaye soo jëndee mu yokk booy détail il faut mu wax nga ni sànq ci lu yàggul dara eh, dinañ andi saafara ci eh, mbir yi est-ce que mën nga ñu wax exactement benn date bi nga xamante ni bu jotee kat dinañ xam ni saafara am na ci yokkute yi. waaw responsable UNACOIS ñu ngi jokkoo ak direction du commerce intérieur ak ministère. Mhm. ñu waxtaan ak ñoom démb am nañu échange tey dinañ ko ne rafet nañ jot ci ne euh, ma du ma jox deadline mais dama jot ne du egg ci fukki fan ak juróom donc jot naa ne mi février la ñu woon ko gannaaw. kon daal gën kaa yàgg fukki fan ak juróom laataa février du jeex mbir yi yëpp dina yemb. rafet nañ ci njot côté njëg yi wax nga ko sànq am na ñoo duut baaraamu tuuma mais est-ce que loolu ci yokkute yooyu ci commerçant yëpp la dépendre non yokkute gi bu tàmbalee ci ñi jaay en mhm. ki day wala ngaan ba ñëw ci ñi jaay détail mhm. te léegi ñi jaay détail ci jigéen ñi di jëndee euh, ndax kuy jënd en boo jëndul sa dundu une semaine da nga jënd pour tey wala pour suba donc boo demee marché da nga fekk loo xam ne ni euh, njëg gi metti na euh, du benn produit du ñaari Mhm. te loolu yënul maanaa wax mhm. nga yokk tegi ko am ñu doon wax ba affaire yokk mais tey ji dafa mel ni laal na commerçant yëpp yëg nañ ko mais surtout ñi jaay surtout ñu surtout ñi jaay en bu fekkee ne yokk nañ day fe day day ñëw ci détail mhm. mais li ma la man a assurer mooy yokk googu li ci commerçant yi ñoo ko sooke directement du état bi du consommateur yi mais consommateur yi ñoo ko njëkk a mm-hmm. mais wax ji moo dérégler marché bi xam nga marché marché ku ne xam ne marché ah mi ngi mel na nga nekk ci mbari rek ñu ne nga toog ci mbooloo rek ñu ne jaanam ngi fi xam ne ñëppay tëbaloo mm-hmm. même bu amul sax ñëppay tëbaloo doo nga xam ne jaan amul mm-hmm. loolu moo waral affaire bi donc wax ji dafa dérégler marché bi loolu laa la wax loolu laa bamtuwaat kon daal euh, euh, yi mu mel ni seen chiffre d'affaires comme surtout ñu jaay ko sànq yokk gi bu fekkee ne euh, commerçant en gros ñoom ñoo yokk day wàcc ci détails yi xam nga chiffre d'affaires moom beneen affaire la. Mhm. chiffre d'affaires mooy mooy loo jënd jaay ak sa bénéfice ak yépp mu nekk nangam. Mhm. au au contraire bu ne chiffre d'affaires day wàññi ko da day yokk sax. Mhm. parce que bu fekkee yokk nga si njëg stock boo ko njëg li nga am ci xaalis day yokk par rapport ak bu fekkoon wàññi nga. donc li ma mën a wax rek mooy nañ rafet njort ci condamné nañ ko te digaluñu suñu membre ñu yokk mhm. mais nag léeg-léeg marché moo lay imposé mhm. nga jëf parce que marché loi loi du marché la mhm. wax léeg-léeg marché moo lay imposé nga jëf bu ma la déggee yokk bi àndoo leen si ba pare dafa anormal mais dafa anormal te ànd ñu ci te ñu ngi ne ko ko def. Mhm. ñu ngi condamné ñi ko waral te ñu ne ñoom ñoo ko waral c'est c'est la responsabilité. Mhm. parce ñoom ñoo wax loo xam ne amul. Mhm. marché bi déréglé wu complètement parce que yokk daan am benn produit yokk. ëllëg nga toog yàgg rek benn produit yëpp àndandoo yokk ça veut dire que marché bi moo déréglé ndax wax ji. wax ji wax ji moo moo yënuwul maanaa te teguñu ko fenn. lu jëm ci wàllu consommateur yi di way jëfandikoo ñoom daanaka fi mu toll nii seen gafa ga kon bënn na kon ñooñee nag andi yokkute gi lor nañu leen bi affaire bi amee ay association de ñu njëkk weddi wax jooju ñaawlu ko naqarlu ko mais amuñu doole arrêté ko mhm. parce que ñoom ñi ko def xañ na dañ ci gis seen intérêt wala seen membre yi ñu ci profito mhm. mais consommateur yi dañu leen mat saw mhm. ñaan yàlla nag lii réglé ñu woon ko dinaa marché bi delluwaat parce que ku xoone cinq ans US yëpp amul benn yokk bu mel ni bu fi am te loolu jógul ci électricité bi jógul ci impôt bi ñuy wax nii kon leneen la leneen li nag mooy wax jooju loolu laa confirmé <laughs> très bien fii ak euh, mi février dinañ andi ay saafara mais laata loolu est ce que tamit amuñu nuñ mën a def wàññi njëg yi ndaxte way consommateurs yi sonn nañ trop. Euh, de mhm. perte il faut mu tekki marge bénéficiaire kon léegi situation bi dañuy ñaan consommateur ñu muñul ñu ko en attendant quinze jours yi ba dañ ci àgg situation bi réglé te loolu rafet nañ ci jot naa ñu ngi ciy liggéey. kon daal ci mujjanteel gi yëf yi métti na ci euh, commerçant yi ak consommateurs yi. bien sûr je mhm. confirme mhm. léegi pour dalal xel yi est-ce que am na ay possibilités yi nga xamante ni mën nañ ko dig commerçant yi ak consommateurs yi laata loolu léegi ñun dañuy ñaan service technique bu ministère de commerce mu wax ci mhm. ñoom ñoo ci mën a wax parce que quand même ñu ñoo te am nañ ay moyen yu mën a dugg ci marché yi euh, mën a mën a mën a mën a mën a aviser mën a jël ay ay responsabilité mën a jël ay décision kooku service commerce intérieur ñoom ñoo ko war a mën ñun mënuñu ko lu jëm ci mbirum stock yu ñu wax est-ce que dal dina am ci stock yooyee waaw ñaan yàlla rek xam naa bu stock yi jeexee leneen lu ñëw euh, surtout produit importé bu amee yeneen approvisionnement jo au niveau du port su ñëwee njëg yi bu wàññee day day feeñ ci marché bi loolu lañu yaakaar. Mhm. en tant directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal nan mën a def ci yokkute njëg yooyu. xanaa ñaan service technique bu ministère du commerce. Mhm. ñu def ci seen intervention bi ci war ñun aussi danañ sensibiliser suñu membre mhm. pour wax pour wax leen lu ñu mën ci ndimbal ñu def ko te wut ay marge bénéficiaire yu yam yu tegu ci yoon yanu maanaa ngir ñu mën ci génn parce que digalu leen ñu ñuy jaay di perte. Mm-hmm. ngir loolee antu est-ce que yéen la leen war seen wet yéen a ngi. mais du loolu du loolaa wax ma ne ñu ngi wax ak suñu membre ñu ngi bi muñal jàppale ñu ba situation bi weesu ñu yërëm consommateur yi. <laughs> Alla Dieng jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup ñu ma fàttali mbokk auditeurs yi ne yow yaay euh, directeur exécutif UNACOIS Yeesal du union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup.